assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokki xadratul malikiya ñoo leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xàq di leen balu xàq di sàkku ci nitam ngeen bal nu xàq bu baax a baax mu mel ni dañuy delsi ak fi ñu yemoon ak borom mun yetul murid di Tijaan ibnu Baaba mi ngi yemoon ak ñun ba Cheikh Seydi Ahmed Tijaan Sërif radiyallahu anhu demee woon Fass di ziyaara toll ci quarante et un ans maanaam fukki at ak benn daje faak soppeem bu mag boobu xaritam bu mën a matal kóllëre boobu di alaaji aliyu xaraasim baraada yaakaar naa ci la ñu tolloon moo tax mu ne tilmisihi saaxibihi xaraazim saaxibi sirrihi l imaamil xaazimi ne nga ne ko xarit bi mooy ban mu ne tilmisihi mooy élève am ba taalibeem ba saaxibihi ki nga xam ne mooy na àndandooru Cheikh Seydi Ahmad Tijaani xarazim mooy ko jóg xarazim mooy alaaji aliou xarazim barada saahibi sirrihi ki nga xam ne mooy borom secret ya te gis nga tabaarakallaahu yemu ko jàngaloon ak yemu ko joxoon ndigal ak fa ko war a defee kon nga xam ne jegewoon na cheikh lool lool lool al imaam kay njiit alxaazimi kay aji dogu te boobale taa mësul gise ak cheikh mësul xame ak moom waaye gis gi mu gisanteeg moom waaye saam gis gi gise ak moom te booba le temps ak xame amul seen diggante dégg nga te avant boobu mësul xamanteek Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Sërif waaye boobu fekk na Alaaji Aliou Xaraasim Baraada géntoon na génn gént diir ba nag yàgg na ba fàtte na ko sax nag waaye keroog ba mu ne jàkk seex ci la ko seex ne de yow de mille neuf cent ci misaal deux mille deux ci misaal rek nag misaal rek ala sabilil misaal rek ñu xamee ko noonu ci weeru mars la 2 mars ci 2002 géntoon nga nàngam ak nangam ak nangam waaye gént googu li muy tekki. mooy man la la yàlla booleek maay sëriñ ñu war a ànd ci wàllu yàlla ba mu ko nettalee gént gi daal ci gàttal comme ni ko alaaji Aliou Xaraasim géntee woon ci la xelam ndaj nag gént ga ak na ma ko génte woon tabaarakallaahu ak naka ko seex waxee woon mu kontaan lool ci na seex firee gént ga ci war a ànd gi mu war a ànd ak moom ak nekk gi mu war a nekk jëwriñam tabaarakallaahu mu kontaan ca lool lool lool lool lool lool lool mu may ko tariqatu xalwati booba tariqat tijaan yi xewagul xalwati moo xew walam takun nekkul maarifatun ak xame diggante Cheikh Seydi Ahmad Tijaani ak alaaji Xaraasim Baraada min qabli daaka njëkk a gisee boobu di am de avant gisee boobu di am xamante wuñu woon lahu ñeel ko bi seykinaa seen sër lahu ñeel na ko bi seykinaa ci suñu sëriñ zil fadli kay borom ngëneel mooy xamante wuñu woon avant loolu xataa taarrafa lahu fa kaasafa man biru ruyan salafat mu kaasafa dégguloo mooy li ma wax léegi xataa taarrafa dem ba xamal ko moom seex lahu ñeel alaaji aliou xaraam si mbaraada fa kaasafa mu wuññil ko yawman benn bis leer lal ko daal bi maanaam yow man benn bis bu yéen ci gént goo xam ne salaf salafat paase na mu kaasa fa nekk lu ñu wuññi lu ñu leeral kon ma ngoog bi ruyan salafat mu kaasa fa mbir moom muy aji wuññul ko gént ga leeral la ko ba mu leer gént ga lu mu doon tekki dallat ala suxbatihi wa zakkar wa qad nasiya bil maali bashar nee na gént ga dal la tegtale na ala sohbatihi ci àndaale goo xam ne war na kaa àndaaleeg Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Sarif wa zakara mu fàttali ko ko gént ga te fekk waxat na si moom fàtte woon na ko moom alaaji aliou xaraasim barada wa basharahu cheikh bégal na alaaji aliou xaraasim baraada bil maali ci mbir yu kawe martaba yu kawe ak garaat kawe kawe ci ànd goo xam ne war na kaa ànd ak cheikh sidi ahmad tidiane sharif radiallahu taala anhu léegi ah tabaarakallaahu la mu waxoon alaaji aliou xaraasim barada moom continuer ci tariqatu xalwati boobule ba yàlla indi leneen ilzami al ahda wal mahabbata xata yatiya allahu xata yatiya al fatx allahu taala wala ko waxoon jàppal ci loolu rek ba yàlla soppi jamono ci misaal wal mahabbata xataa yatiya alfatxu inshaa allahu taala cheikh wa min tilmisana na wantiqaala ila abi samquune wa salaala am na ñuy jàpp nag salaala ak abi samquun benn dëkk la ndax xam nga tilmisaan nekkoon jugee fa ñëw faas léegi nag dafa ñëwaat foofule dégg nga wa nawaa jublu na moom seex intiqaaluhu ak toxaloom min tilmisaana bàyyi ko tilmisaan jëm fan ila abi samxuun jëm ci xasru abi samxuun di benn nit yàlla bu mag ñu tuddee ko dëkk ba wa salaala ak salaala moom it fu jege abi samxuun la am na ñu ne sax benn dëkk la am na ñu ko jàppee benn dëkk nag dégg nga ko bu baax a baax loolu ci kañ la mu ne fi aami sittatin wa tisiina artaxal anha ilayhima bi ahlihi waxal ma ngi fa dem moom cheikh ba mu amee ñeen fukki at ak juróom benn waaw la dem abi samxuun dangay wax ne war taxala irtaxala laxas na anha bàyyi ka abu samxuun xawma tilmisaan ilayha jëm ci ñaari dëkk yële di abu samxuun ak shalala fi aami sittatin ci atum juróom-ñeent fukk ak juróom-benn maanaam ba gàddaay ga amee junni at ci misaal ak téeméeri at ak juróom-ñeent fukki at ak juróom-benn bu waa nag seex ci am ci at yu mu dund ci kaw suuf 46 ans dong lay doon moo tax ñu lay jox noonu rek pour mu gën a yomb a dégg. moo tax ñaan laa ba mu amee nangam ba mu amee nangam rek pour mu yomb dégg ci yow dégg nga ba mu amee ñeent fukki ak juróom-benn la jógee til misaan dem abu samquun bi ahlihi waxal mu wàcc foofa aywa gannaaw loolu itam ba mu nekkee diggante abi samquun ak solaala am na beneen nit yàlla bu mag buñ doon wax sayid muhammad ibnul fudayli si naa see doon sàkku ay mbir ci moom bindu ko leetar mu mel ne nit yàlla ba dafa naaslu te naaslu gi kat moo ci jublu woon pour jàkkaarloo gémmi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif yi ba seex demee ci moom nag la jëflanteeg moom la mu jëflanteeg moom tabaarakallaahu mu jox ko ca lam ko ca jox loolee lay nettali file wa saafara sayqu ila tawaati li ajli aarifin lahu muwaati nee na wa saafara tukki na wayaasina a seyqu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Sërif ila tawaat jëm dëkk boobu ñuy wax tawaat moom itam benn dëkk la li aj li aarifin ngir benn nit yàlla boo xam ne aarif boo xam ne aji nekk la nga xam ne loolu ñeen la ko mu muy aji dëppoo ak moom ci lépp loo xam ne bëggoon na ko waaye wax naa la jiitu Cheikh di dem dafa bindoon leetar mu mel ni kooko dafa naas lu ngir bëgg a jàkkaarloog jëmmi Cheikh ji tax loolu moo buuxee seex seex ba mu xamee loolu loolu la dem nag tabaarakallaahu ñu jëflante fa lañ fa jëflante euh, la xew-xew aywa kadaaka saafara ila bni larabi tilmidi lxibbi rafici lmansabi wa huwa alladi wassa alayhi lmustafa salla alayhi llaahu man lahu ma ngoog nee na gannaaw loolu nag nee na gannaaw loolu nag seex tukki na jëm ci ibnul arabi di muhammad ibnul arabi addamraawi attaasi benn jëm boori taasa ba mu fa demee la fa fekk taalibeem boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Sarif radiyallahu anhu pour mu taxaw ci ay mbiram waaw pour mu taxaw ci ay mbiram ndax yonent bi Cheikh rusoon nu ko rus goo xam ne bu ñu jàkkaarloog moom yu bëree bëri du ko ko mën a wax du ko mën a laaj ba mu gi lu mu bëgg a laaj maamam ci damraaw yi la koy jaare pour mu laajal ko ko maamam. Mhm. lu mu bëgg laaj rek ci moom la ko doon